Aliou Njaañ wax ci Seydi Hadj Malick bare na. radiyallahu taala waaye waxul lépp. ndax mu wax lépp xamul lépp. Mm-hmm. nit da nga koy déggal ba nga fekkeel ko. boo ko fekkewul déggal ko. boo ko fekk boo ko fekkewul déggal ko. Mm-hmm. la ngay dégg ci moom moom nga mën a wax. waaye ñiy fàttali nit ñi mu wax ci alaaji Malick li muy rëy rëy rëy hmm. alaaji Malick benn la ci jaamu yàlla yi te nit mënul doon yàlla mënul doon yonent te yàlla dafa ko ko hmm. benn jaam la woon moom la nangu wax na sànq ni alaaji Malick daan dunde laaxu Dakar alaaji Malick ni mu daan dunde laaxu Dakar laax bi kenn daaw ko ràcc dañ ko daan yekk noonu bàyyi ko noonu buñ ci defee buñ ci defee cafaay bi mu bëtt ci ñaari baaraamam ring ko yëngal ko macc yëngalaat macc yëngalaat macc sant borom ñetti ñetti macc la ci daan macc waaw waaye ñu ñu fàttalee leen rek ni euh, Seydi Hadj Malick nangu hmm. ni waxtu ma la di ëpp nit allahu akbar waaw mosul bëgg tolloo nit ñi sax di waxtu ma la di ëpp nit moom laa liñ moom laa liñ daan wax sànq ni nooy ak wàcc moom la indi fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fardan ghalida alqalbi linfaddu min hawlika waaw loolu moom mooy li Alioune Diagne wax. ñun dañ ci barkeel rek ñun. jërëjëf Pape. ndax it xam nga buñ dee wax ci Alaaji Malick dañ koy déglu. bu fekkee ni wax na ci lu ëpp. dañ koy weddi. bu waxee lu yam nag ñu xam ne lii Alaaji Malick ñii la dundee. macha allah waaw waaw. parce que bu mënee wax manaakib bu buñ de wax manaakib yi war nañu mën a waxaale jikko yi. allahu akbar. waaw wax waxaale jikko yi. bokk na ci jikkoom nee na li li yàlla di joxe ku ca bëgg am na melokaan woo war a mel mu ni fa chanu rijalillah xamlu adal wara kada fal yakun man lil ilahi tashammara waaw ci Malick allahu akbar jërëjëf xamlu adal wara kada fal yakun man lil ilahi tashammara su ko defee nag da ngay nangu da ngay nangu da ngay boole ci sa jaamu yàlla ci sa wàcc ci sa suufe lu nit ñi tilim li sànni la ko bul ko faxas nangu ko ngir yàlla sànni la ko doo ko doo ko faxas ku bëgg ku bëgg am la ci yàlla foofu la gaa jaaroon ba àgg ci yàlla kaza falyakun man lil ilahi tajammala waaw. jërëjëf. jërëjëf si. jërëjëf si Malick. si nu ngi lay ziar nu lay ndokkeel bu baax a baax. yal na yàlla nangu nangu yal na yàlla nangu papa. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf papa jërëjëf ah, euh, kontaan nañu ci waxu Aliou Ndiaye. bi mu waxee ci charte tariqa bi. Uh-huh. wax ni tariqa bi dafa ni. Hmm. képp koo xam ni kii. képp koo xam ni ki yaa ngi jël tariqa bi di xeeb kenn ci nit yàlla yi bokk doo doo mën a bokk ci tariqa bi loolu loolu kontaan nañ ci parce que loolu loolu charte la ci tariqa bi ñi ci bokk tey xeeb beneen këru diine wala ñuy xeeb nit yàlla wala ñuy xeeb sax dof ci mbedd mi xamuñu xamuñu lu xem. jërëjëf si Malick. waaw xamuñu lu xew. parce que ku ku bëgg yàlla. foog nga foog nga loo gis xool ca yàlla. te yàlla. loo gis rek loo xoolee xool ca yàlla. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. noonu la ngeen jéggal ñu. Mm-hmm. baa ñu ak li ñuy dagg seen wax ñi waxuñu lu gën li ngeen doon waxuñu lu luñ waaye xalaat rek. si Malick si Malick si Malick doo dem doo dem mukk te ñaanoo loo ñu. ñun ñi fi toog ak àddina bi seetaan émission bi ñu tàllal suñuy loxo. waaw waaw. waaw kay. li ñuy ñaan daal. Sénégal yëpp tàllal seen loxo ak diaspora bi. gulee ah, li may li may ñaan. Hmm. li may ñaan dama koy ñaan boole ko ñëpp. Hmm. jaamu yàlla yëpp. Hmm. kuy jullit ak ku jullit. ndax ndax Seydi Maalik ñaan ñaan ko. bokk la Adama ak Awa amul ñetteel. Adama. rahiman min baynina nasabun min jihati tiini aw fi diini yàlla kon dañuy ñaan yàlla ñu waaw ñaan ñaan nag ñaan nag yàlla ko digle ñaan yàlla ko digle waaye wax na ci biir waxam sànq ni ci ragement yi ne yàlla teg yàlla na ma ko defal sama bànneex waaw waaw. dafa am ci jaamu yàlla yi koo xam dafa ni dafa wax ni dafa feebar. Mm-hmm. ñu ko ñaanal yàlla mu may la mm-hmm. mu ni mën naa ko waaye rus naa ko. ndax yàlla ma tànn ci biir nit ñi. Mm-hmm. teg ma nattoom ma di ko wax ni ko li ma teg neexuma teggil ma ko. rus naa ko. allahu akbar waaw waaye itam terewul nag. ñun ñëpp dëkk nañu suñuy loxo. waaw waaw. Cheikh Cheikh El Hadj mii mu wax léegi léegi wax na wax na ci Jaksaaw fii maa ngi toog fekke ko. Hmm. mu wax ni euh, dafa tàng tàngaay mu jàmba tàngaay ba mu yàgg mu poñe boppam ba mu boppam xottiku Abdoul Aziz luy seyoon ci lu yàlla dogal. ci li mu sañ ci moomeelam nga di ci am xalaat loolu suñu am def na ko fi kon li ñuy ñaan yàlla comme comme ñoom seen maqaam àgg na foo xam ne fii ñun suñu ba sa àgg fa waaye yàlla noppal nañ nee na uduuni astajib lakum alhamdulilah uduuni astajib lakum di leen ma ñaan ma di leen may allahumma amin yàlla ku ko ñaanul jëppi na la wallahi waaw ku ko ñaanul jëppi na la allahu akbar li ñuy ñaan yàlla na lii tax. allahumma amin. waxtaan ak mag ñi ñu jàng ci dégg ci xam ci suñu bopp. ndax mag ñi ñu mën a xamee suñu bopp. ki la fi jëkk fekke loo fekkewul. déedéet. xam loo xamul. déedéet. boo dee départ war na ko laaj fooy mm-hmm. kon ñuy ñaan yàlla. li tolloog jamono fii lii fi nekk te di jaamu yàlla yàlla bind ko wàcce ko fi du feebar du jàngoro balaa la wobaa la du jàngoro bu amoon jàngoro am garab li kulli daa in dawa waaye nag amul amul ñaan yàlla rek tuub ñaan yàlla ak sarax moom rek ko fii jële coow lu bare bare bare yi yëpp waaye itam nag dem ci biir jàkk yi walla feneen wala julli ji hmm. bonul waaye du ci jàkk rek la war a ñaane yàlla de hmm. ñii dugg xalwa duñ ko duggee ci biir jàkk hmm. daan nañ ko def sax daan nañ ko def mais li ëpp ci biti lañ ko daan ñaane kon ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mii borom kàttan day def lu ko soob fa aalun li ma yàlla na ko soob bokk ci la ko soob lii fi xew jaaxal ñëpp ba kenn xamul foo jëm. wallaahi yàlla nañ ko yàlla teggi. allahumma amiin si Malick. te wotte ko nag. allahumma amiin si Malick la mu fa jëlee yàlla na ko delloo si. amiin delloo si fa yiw. amiin ak wér. ak déggoo ci dëkk bi yàlla def jàmm ci dëkk bi. amiin si Malick yàlla dolli barki ci dëkk bi. allahumma amiin yàlla jubale xol yi. amiin si Malick yàlla defaraat xel yi. amiin si Malick dimbale ñu. amiin yàlla ñu ko yàlla boole defar. amiin xel yi defaru. na xol yi defaru. ñëpp ànd ak bëgg a bëgg amiin Sénégal dañu am euh, spécialité boo xam ne ñoom seen jago ñoo ko war a ngeen bal ma xam li wax ni gudd na gudd na trop waaye maa ngi leen di maa ngi leen di jéggalu ñaan suñu borom ñaan suñu borom eh, mu may diñ koy ñaan suñu yaakaar yàlla bu mu na ñëpp ànd yàlla na xol yëpp na xol di benn yàlla na xol di benn te diggante këru diine yi nag ku ci wax ñaanal de ku ciy wax rek wax ci lu rafet. nit jëm yàlla. ku ciy wax wax